borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi mustawa ña daa xiiru ak mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko mustawa ña daa jabar ña daa xaatima ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha ñi ngay woo nee nañu waaw waaw nda Cheikh Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Cheikh Amdi Moustapha ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëwre ku jëkki jooy ndeyaa doon Moustapha walaf nee na woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Moustapha walaf nee na am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji Moustapha la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk Moustapha Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Moustapha ndax ganaar nenam yaak siqiya cuujo kulluhum borom gamba baa moom lépp naaw tal nu mustawa cheikh mustawa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustawa lu njaaga bambay njaag te mooy njiin fa mustafa ku fay nag jikkoom war si mustawa cheikh moustapha géeju ngëneel waaju ak duy ku bay xondooj yaa tey ma ngay wal fa moustapha maa ngi wër tuuba batum ay nu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi moustapha ma nga yeesalaa tuuba bi tëjdiidi diinihi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 بعد باطن عنايته قبل الولاية مستوى كلي مباكي واكو كيك لغان دام ديكر ndeyam ña doon kaañi kankaan ba koleeraam fa mustawa kuloo wasra boo dex gaa fengat to dootu daay sëriñ bi di barul juudi nuur leen fa mustawa ولا يستوي البران عصب سرابه وملح أجاج بالخياس نتك مصطفى